teg Sa Thiès teg pied gauche reg Reug teg pied gauche ñu dem doxal Sa Thiès ci kaw Reug Reug dox ci kaw Reug Reug Reug Reug song ko am benn tànk ak loxo droite lekk tànk bu ba suur ak loxo droite am yootu ci ndiggu Sa ne ko rab dem booy def demi-flexion pour yennu Sa Thiès Sa Thiès neewul doole ba pare dafa téye ci euh, loxo droite ci ngembal reg Reug Reug Reug dem mënul dem mu def un ci kanam buux ko pour mën a dabb jiwaat deuxième pied bi mais bi mu defee un pas dabb jiwaat ko euh, pour dem ci deuxième pied bi nag foofu noonu Reug Reug euh, Sa Thiès dafa sote Reug Reug defaat pivot xandaalu ak moom bi mu xandaaloo ak moom nag boo xoolee ci kiwisiw Sa Thiès poktaanu kiwis yi ci la ki nga xamante ne mooy Reug Reug ci la dugal ay loxoom bi nga xamee def na action bi ba mu jeex ba ñu wat ci bir jappo parce que benn jàpp fa am te Sa ci sa ko japp muy loxo gauche am mu ngi dug ci euh, ci loxo droite am mu ngi dug ci ngembu ki nga xamné moy reg reg reg reg Reug parce que fofu amul fu mu japp Sa ci mo japp te ñaari mbeur bu ñuy bëre mbeur mi bu songé dajale ñaari tanki mbeur te jappul fenn ki nga xamanté ni mom lañ dajale ay tankam bu amé ngemb bu fa xawé nek ndanan touti day indil ki nga xamanté ni mo songu problème parce que kooku du jàpp fenn te da koy tiim da koy suruxal. Mhm. waaw bi mu ko suruxalee nag Sénégal ñi nañu quatre appuis la man mi ci ne nañu quatre la am na ci laa bokk waaye nag dafa am loo xamante ni su amee ñun duñu CNC ñu jogaat CNC ne leen bërewaat leen ñu bërewaat Sa Thiès gëddu ko. dox ci kawam rëg-rëg mi me ñu bëgg a daje ku ne téye denc sa sa bopp ñu jogaat bi ñu jogaatee Sa ci sani ko gauche rëg-rëg lekk gos bo gos boobu ba tarpi tarpi Sa ci doxaat ci kawam rëg-rëg fermé waat Sa ci freiné rëg-rëg defaat gauche droite yoo xamante ni dalul Sa ci mais bi gauche droite bi jeexee ci la tënk Sa ci bi mu ko tënkee nag tënk bu mujj bi daf ko tënk ba boo jeex tàkk ba pare boo xoolee boppu Sa ci ci naqu rëg-rëg la ko teg ci naqu euh, Reug Reug ci naqu Sa Thiès la teg boppam ne ko rab dawal ko jéggiwul moo tax te rek la la Sa di mën a def léegi li ci des nag dañuy bàyyi ak CNC boo xam lu muy def ñaar ñoo xamante ni lam di leen a yaakaar ku ci nekk da ngaa am ay mbok waaye ku ci nekk tamit xam nga li la yoon may pour nga def ko ci combat bi si li nga xamante ni mooy dañ ne sid am naag sid amul am na lu la see lu la yoon may nga def ko léegi nag dañuy xool fu wane di mu jëkki bootam ci diggante Sa Thiès Reug Reug. d'accord mhm. su am na wala amul waaw yow tey Sa est-ce que jàpp nga mhm. la bëree. non ban deful erreur. xam nga lan moo tax Reug Reug deful erreur. Reug Reug boo xoolee dañu ko ne dañuy bëre far force loolu la ko Sa Thiès wax Sa dafa ñëw ne ko dañuy bëre far force dañuy xeex far force dox ci kawam Reug Reug nag di génn pour mën a gis Sa mais boobu Sa Thiès da koo cadré daf ko tëj gauche tëj ko droite ba pare di def benn pas ci kanam loolu nag pour nga génn ci day xew a doy waar lool ni muy doy waar moo di euh, ndaanaanu euh, rëg-rëg sax moo tax rëg-rëg songi Sa Thiès ba jàpp ko mais bu fekkoon ni du ndaanaan mun na jël ko asaar boo xamante nii du xam fi coup bi jóge te coup bi day nekk ci surface yi nga xamante fi la Sa war a xeexe foofu la rëg-rëg di jëlee coup bi te bu ko jëlee mun na toog alors ñu ñaari avenir u làmb te yow yow lan nga leen di euh, conseil en tant que euh, Bamba làmb